man la Laurent Diouf président de la commission régionale des arbitres de Kaolack ok ci làmb Kaolack saison 2019 bon ci saison 2019 2020 comme ni ngeen ko xame rek vraiment lamb ren moom lamb Kaolack euh, ak Covid bi vraiment doxul. parce que jotoon nañ am ay quelques journées bu dee nag dans les districts muy Gandiaye Ndiaffate ak euh, dans le Ndiédiène ñooñu vraiment. foofu amoon na ay quelques ay séances mais biir Kaolack en tant que Kaolack commune moom ren moom vraiment affaire bi taxul mu mu dox quoi ay lutte simple ay gala de lutte simple lañ doon am. xam nga comme saison bi dafa teel a arrêté au mois de presque février bon loolu moo tax euh, ren bariwuñu ay làmb daal même lutte avec frappe bi ñu doon am amoon nañ ay combat yoo xam ne programme woon nañ ko. mais léegi mais euh, ren daal mujjul mujjul am quoi ak euh, interdiction rassemblement yi yëpp. loolu bon ñun bon c'est c'est que at nag at yii nag vraiment lutte sans frappe bi moo xaw a dominé quoi mais am na temps euh, il y trois quatre ans de cela vraiment lutte lutte avec bu dee dans la région bu dee da nga jàpp région bi. lutte sans frappe bi moo fi dominé bu fekkee da nga jàpp région bi yëpp mais parce que mais bu fekkee dans Kaolack dans la commune de Kaolack parce que c'est la seule zone ci région de Kaolack foo xam ne dañuy def lutte avec frappe ñuy organiser des combats ay promoteurs di organiser des combats soit des promoteurs de Kaolack wala ay promoteurs yu jogee dans les autres régions comme ay Dakar quoi les promoteurs nationaux léegi problème waaw bon niñ ko dundee mooy ñi ko ñëpp dundee rek parce que ñun bi grève bi enclenché woon suñ président Sitor dafa wowoon ñëpp dafa wowoon tous les présidents de CRA ne ñu comme le bi ñu expliqué ñu kii mouvement bi yëpp parce que affaire bi yàggoon nañ koy yàggoon nañ koy coow parce que bu ma boo seetloo sax. xëj naa am na lu bëri ñu bëri ñu réeree mbir ne gis nga la grève des arbitres la boo seetloo ci ñun ñii la faqa ko parce que ci ñun ñii la sosoo ñun région yi parce que il y a de cela deux ans trois ans à chaque fois bu ñuy joytu suñu problème suñuy condition suñuy nekkin au niveau de bu buñ ko waxee rek président Sitor ne bind leen ko bind leen ko bu ngeen ko bindee bu ngeen ñëwee bu ñëwee CNG après dinaa ko dinaa leen ko poser à chaque fois nag bon léegi nag bi nga xamee ne déclenché nañ mouvement bi mu avertir ñu ne ñu on va aller vers un mouvement si aussi ñun ñu kontaanoon ci trop parce que aussi boo gisoon daal vraiment le CNG c'est c'est mouv euh, grève bi vraiment dafa meloon ni ñun dans les régions lañ ko defal. ok bi waaw parce que keroog jour bi ñu waxee jour bu ñu jour le premier jour bi ñu déclenché la grève xam nga président bi président Sitor def ñu ne woon il faut avertir les présidents de CRG ci la woo sant président de CRG nekko nag ñun vraiment euh, lamb bi am parce que ce jour là amoon na lamb à Ndangaan le quartier Ndangaan. Euh, de Kaolack keroog amoon na fa lamb boo xam ne ça devait durer deux jours ma woo ko ne nag comme nous sommes en mouvement vraiment cette euh, manifestation boobu daal duñ ko mën a euh, arbitre mhm. noonu la deme léegi nag bon xaw ma nu ñu defee xaw ma nu ñu de kii man xamatuma sax parce que j'avais pas demandé laajtewu ma ndax lamb jooju amoon na wala amul loolu yëpp man du loon sama kii daal. Uh-huh. comme man comme waxoon naa ko ma avertir sama collègue yi ma nekkal ne leen daal il faut que que personne n'y aille bu bu kenn dem. Uh-huh. léegi mi waaw ndaje mi ndaje mi vraiment tax na ndaje mi c'était pour ñu ñëpp nekk au même niveau d'information parce que aussi am na ñoo xam na arbitre yoo xam ne. xëj na au fond xamuñu la genèse du conflit entre le, le euh, euh, entre le CNG ak les arbitres loolu moo nekkoon premier point bi deuxième point bi la situation la situation des arbitres dans les régions ñun ñii muy Kaolack muy Thiès ku ci ne wax nañ euh, problème yi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel te comme boo seetoo ci ñun dans les régions ñun ce qui li ci gën a métti mooy suñuy pay da ngay fanaan ci làmb ba ay deux heures du matin parce que bu dee sam suñu région muy Kaolack nga xam ne làmb guddi la ñuy am ay deux heures du matin lay tas une heure une matin des fois boo wàccee daal vraiment ay somme dérisoire ngay yóbbu mu nekk ay conditions yu métti ak làmb ak risques yi ci ne léegi nag loolu bi ñuy joytu li nga xam ne moom la ñuy fay léegi le CNG daaw jéeg envoyé waat beneen correspondance comme quoi nay nit ñi respecter règlement euh, euh, honoraire wu arbitre yi à savoir les dix pour ci dix pour cent yi CRG di am les soixante dix pour cent qu'ils reviennent aux arbitres mais biñ ko defee ñu wax ko kii ko mais taxul daal vraiment ñu appliquer ko léegi nag loolu bi ñu ñëwee tey waxtaane nañ ci aussi ñëpp xam conditions yi nga xam ne moom lañ nekkee ci région yi ak aussi sécurité bi nga xam ne vraiment des fois saa dafay métti parce que ci suñu làmb yi des fois xëj na bu dee Kaolack sax at yi xaw na passé mais il y a de cela trois quatre ans vraiment on a eu même des arbitres yoo xam ne dañ leen agressé am na ku ma ci àndal fii làmb bu amoon sàmm nga xam ne dañ ko xaañoon ah dañ ko xaañoon vraiment te loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne vraiment day gàllankoor yëf Euh, waaw moo de la fin mooy di rafetlu lii di rafetlu initiative bii nga xam ne moom la CCA am vraiment convier ñu fii à un conclave ñu mu durer ñaari fan ñett vraiment ñu pour pour xam problème yi nga xam ne moom lañ nekkee dans les régions surtout parce que vraiment le combat là biñ koy porté ñoom vraiment nee naa c'est loo xam ne ça vient à à son heure quoi te gis naa ne vraiment. ñu ngi ci jàpp nañ ci ñoom vraiment tey presque boo seetloo li nga xam ne moom la am na point yoo xam ne dañ dafa bokk ci plateforme en euh, plateforme arbitre yi vraiment boo seetloo à Dakar dañ du seen problème mais dans les régions surtout loolu daal mooy mooy seen problème loolu moo taxoon vraiment ñuy ñuy rafetlu li nga xam ne moom la CCA def fii tey sali vraiment di leen jaajëfal vraiment pour te kontaan ci ñoom. waaw man maa ngi tudd Aline Diop bokk CRA nekk président e commission locale des arbitres de Diofior tudd Aline Diop waaw. bon bon amoon nañu six séances avant avant corona bi di ñëw. waaw amoon nañ daal si séances de lutte. waaw moo fay am. pour le moment. Euh, waaw macha allah euh, bon ay séances yu bëri dañuy réussir de macha allah mbër yu bëri dañuy ñëw daal làmb yi daal macha allah dañuy dox. waaw léegi problème bi euh, waaw ko dundee ak seen bon buñ ko yëgee biñ ko yëgee parce que man euh, ki topp ci man moo ko yëg sax woo ma téléphone wax ma ko ne il paraît que CCA fële Dakar ñoom dañu grève ma ne ko lu waral grève bi bon mu expliquer comme ay assurance ak yooyu dañu dafa am doléance ñu teg mu yàgg lool. ñu koy bind di wax di bind di wax di bind di wax mu yàgg trop te CNG defuñu dara ba benn vendredi ñuy waaj ay combat weekend bi bon euh, président Sitor ni ne ne leen ñun dinañ dem grève ñu ne waaw prenez vos responsabilités xam nga grève bi daal noonu la ñëwee léegi ñun buñ ko yëgee euh, fekk ñu nekk ci benn làmb ñu àggali làmb boobu woote réunion Fimela ñu nag zone Fimela ñu toog waxtaan ñu ne léegi ñun kon fii ñu comme fii ñu nekk amaguñu problème ak suñu président yi te fële comme arbitre yi grève nañ mun nañ ñëw wut si fii arbitre mais bu ñu ñëwee ñun bu ñu dem parce que ñooñu li ñuy ñaxtu pour ñun ñëpp la assurance ñëpp a ko bëgg. mais comme amuñu pré eh, problème ak suñu président CLG yi nekk fii ci zone bi moo nañu gérer làmb yi quoi mais nag bu ñu dem ndakaar ñu wax loolu ba d'accord ñu ñëw continuer continuer làmb yi làmb yooyu pare beneen commencé fi muy waaj a pare benn bu bu nekk fi ci samedi ba la président bi arrêté manifestation yëpp Sénégal ndax corona bi waaw. ok kon yéen boycotté wu euh, waaw bon yi desoon daal bi bi président bi arrêté lépp mais am na làmb yu bari yu desoon waaw mais lu tax euh, def de boycotté wu ñu làmb yooyu waxoon nañu président euh, ñoom Sitor ñoom Malick waxoon nañ leen lu tax waaw. mais woo nañ ñu pour ñu jéem a dem Dakar mais ñun dañoo bañ waxoon nañ leen nag li tax waaw parce que ñun daawuñu woon am information bu bari wax dëgg yàlla te mu ñu tëba tëb rek bàyyi làmb yi fii ñoom itam comprendre nañ li tax ñu ñu ñu continuer làmb yooyu waaw. léegi sant yàlla sant yàlla man yàgg naa ko sàkku bu baax a baax a baax pour ñu daje ñun arbitre Sénégal yi wax suñuy mébét. Euh, ndeke ñoom fekk na doon nañu programmer sorti chaque année defe naa cinquième année bi mooy ren ñu boole ñu ci ñu kontaan ci lool ñëw def fi trois jours waxtaan wax lépp lu ñuy jànkoonteel fële région bu nekk wax ñu tënk ko def ko benn kayit pour ki war a ñëw ëllëg bu ñëwee ñu jox ko ko mu jéem a taxaw ci problème yooyu. parce que arbitrage dafa métti waaw. ah di la sant di sant waa Wassare Lamb euh, parce que bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jàllale suñu information yi di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax waaw di ñaan yàlla ca kaw ca kanam di sant waa président Sitor Malick Ngom Babacar Diop parce que. ñoom ñoo ñu woo pour ñu ñëw fekkee ndaje bi pour mun a toog waxtaan ñun ñëpp ñu nekk benn léegi à partir de maintenant lépp lu xew ñun ñëpp dañ koy yëgandoo waaw di xam jafe-jafe pour ñu mun a avancer dem ci kanam làmb jëm kanam waaw. bon salaamaaleykum euh, yéen waa Wassare ak ñu leen di suivre yëpp maa leen nuyu boo man c'est Aboubacry Dramé. président de la CRA de Thiès. Euh, président nga ñëwal ñu rek ci benn bilan bu ndaw 2019 lamb Thiès naka la demee. bon waaw en fait euh, su ma ñëwee directement rek ci euh, bilan bi mën na ma fàttali lu bëri wala ma faussé lu bari bon en tout cas comme ñi ko ñëpp xamee ñi ko ñëpp gisee. mooy vraiment instant bi mënoo def benn bilan ci pour lamb Thiès ci côté yëpp nag mënoo ko def. waaw vraiment. mais am ngeen ay journée yu bari. bon pratiquement bon peut-être ay une à deux journées. ci ci li ma jàpp une à deux journées lu dul avec avec frappe bon simple aussi euh, peut-être à Mbour am na fa je pense bien. mais euh, boo dee xool daal après confinement euh, affaire virus bi. vraiment moo moo gàllankoor lu bari daal. seen région lutte avec frappe bu fekkee damay xool euh, dans toute la région. mën naa ne lutte avec frappe euh, mooy dominé euh, mais quand même euh, ci dans les coins les plus reculés euh, de la dans la région am na aussi am na ay ay ay séances de lutte simple yu ñu organiser foofu mais maîtrise wu ma ko lool lool lool. CNG bi ak euh, ah. ah waaw bon en fait defuñu rek lu dul euh, topp li nga xam ni kuréel bi yëpp moom lay kuréel gi ngànk arbitrage bi loolu lañu décidé donc ñun euh, vraiment ñu bokk nekk ci acteur yoo xam ne aussi bi décision bi wàccee ñu jëlandoo ko ñun ñëpp mënuñu rek lu dul observé ko parce que décision ba groupe lëmb la donc mënuñu rek des ginnaaw donc nag bon ñun aussi de notre manière joué nañ ci suñu rôle. mooy que ni euh, téye su banque suñu loxo bañ a officier ji. ok am waaw juste euh, bon peut-être dinaa ko fàttali ñi nga xam ni dañ ko fàtte mooy juste bi événement bi amee ñun ñëpp ñu yëg ko mooy journée bi nga xam ni euh, arbitre ci lañu boycotté. ñun pratiquement ci lañ boycotté le même jour parce que décision bi le même jour lañ ko jot le vendredi ñu informé ko suñu tutelle suñu président CRG ak bureau bureau CRG yëpp yu bon ci lañ ko observé ci la ñu banque suñu loxo mais le samedi ou le dimanche lamb amoon na fa quand même lamb amoon na fa. seen fii lan si mën a jàngate. waaw fii liñ ci mën a jàngate bëri na benn. tax nañu gën a xamante parce que arbitre région yëpp ñoo fi dase peut-être à l'exception de quelques régions yoo xam ne peut-être dañoo sori wala boog euh, yenn arbitres aussi amuñu woon jot pour ñëw parce que nag euh, suba ñëpp xam nañ ni euh, am na ay épreuves yu war am te arbitres yi pratiquement ñu ci bëri ay fonctionnaires lañu. bëri na ci aussi ay te fi ñu dëkk dafa sori loolu moo tax yegg suñ fi mais nag li ñu ci mën a retenir mooy ak li nga xam ne moo ñu dajale fii mooy saytu li nga xam ni mooy li nga xam ni weesu na ci année bii ñu génn. su ma nee année bi ñu génn mooy année lamb bi ñu génn euh, li nga xam ne jaaduwul te doxul ñu toog euh, waxtaan si bu baax a baax a baax parce que d'habitude dañ ko daan def bii mooy suñu cinquième année quand même ñuy daje fii bon année yu bëri nag dañ daan daje Mbodiène mais ren la ñu la ñu daje fii parce que jën dañu amoon empêchement pour dem foofu bon pour des raisons yoo xam ni peut-être euh, borom boîte bi moo moo ko wax moo tax mu mënuñu woon daje foofu donc pour fàttali ñu ngi suñu cinquième anne bon li nga xam moo ñu dajale at bu jot mooy dañuy ñëw saytu lépp loo xam ne dafay doxal làmb ñu waxtaan ci lépp loo xam ne aussi doxalu làmb ñu jëm ko dindi lépp loo xam ne aussi dafay euh, avancer la euh, la lutte vraiment ñu ñu dox ci bon ci kaw loolu aussi euh, rencontre bi tax na ñun ñëpp ñu dajee xamante parce que nag man président par exemple président bu Fatick président bu CRA bu Fatick peut-être xamante wu ñu miinante wu ñu lool. Euh, yenn yenn yenn point yi nga yenn point yi nga xam ni làmb am na fa mooy ay jof yoor fii mu la arbitre yëpp ñu dañoo war a xamante mais vraiment occasion bi tax na ñun ñëpp ñu xamante euh, ba pare nag ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk bàyyi di xàccandoo di dóorandoo maanaam règlement bi xam ne moo am Dakar moom lañu ñu bëgg mu am ci région yi yëpp loolu nag mooy sababu gën nag ñu daje fi et puis bul fàtte ne am na mémorandum boo xam ne déposé na ko table CNG loolu aussi waxtaan na ci bu baax a baax baax a baax a baax ok sa waaw bon sant sunu borom bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla ni ñuy jógee suñu région yëpp ñëw fii ñu ñëpp ñu delluwaat si jàmm encore une fois fi ma waroon tàmbalee sax moo foofu lay terminer mooy ñu ñaanal yàlla suñu borom ñi nga xam ne nekkoon nañ fi ak ñun suñu waxee loolu suñu xel day dem ci Pa Nior suñu xel day dem ci Ablaye Diouf suñu xel day dem ci ñu bëri ñu bëri ñoo xam ne ñun ñoo bokkoon at bu jot ñun ñoo ànd tey newuñu fi ah, ñu ngi ñaan suñu borom yàlla yeesal njëgalam ci moom ah, ba pare nag yàlla defal ñu aussi ñun aussi ñu am gudd fan ak ah, yàlla kattanal ñu mën a matal yéene bi nga xam ne aussi nit ñi am nañ ko ci mën ak attente bi nga xam ne nit am nañ ko si ñun mhm, di jaajëfal ñëpp nag jërëjëf merci